Le ma de a wax dama élément de langage yi ñuy De dafa am a ay journalistes yu ma laaj mandat de dépôt mandat de dépôt amul ndax mandat de dépôt mënul am police mënul am gendarmerie dama xam ko mu jeex bu enquête mandat de dépôt mënul mandat de dépôt procureur ou le juge d'instruction ñoo ko signé loolu dama mu d'abord confusion léegi nag na Fall Bouga tey déglu nañ ko juróomi waxtu ba ñaar fukki waxtu donc man na juróomi waxtu mu leeral liñ koy laaj waaye xam ngeen ne bu ñu enquête ci dossier bu sérieux il faut ñu il faut mooy garder à vue ndax dañuy bañ nga am ay contact ak ñeneen dañuy bëgg nga wéet ak enquêteurs yi pour doo mën a wax ñeneen pour du am benn combine loolu moo loolu moo waral garde à vue mooy dañ lay kenn mënu laa gis à part ñu enquête waaye ñu ne yow yaa def de déedéet dañ lay téye pour def enquête bi ba mu jeex alors loolu nag enquête bi tey tontu na ci liñ ko laaj yëpp moom Seydina Fall comparé nañu nag gendarmerie section recherche dina ko jéggal loolu mooy defeere da ko jéggal procureur suba wala ginnaaw suba bu ko defee procureur moom mooy xool lan la dossier bi laaj foofu lañ tolloogum loolu laa bëggoon a wax jërëjëf